waaleykum salaam wa rahmatulaahi taala wa barakaatu. waxtaanu koor ci yor-yoru koor. waxtaanu koor ci yor-yoru koor. waxtaanu koor ci yor-yoru koor. waxtaanu koor ci yor-yoru koor. ñu am mbégte ak contentement feggoog ka nga xam ne mu nekk ca xarala ga di tonton mag moom mi nga xam ne day jël wax ji daal di koy ñoddi mu jaar ca buumu xarala ga mu daal di koy jël nag ci ay pexe tubaab. sànni ko ca jaww ja jaww ja daal di koy jël tasaare ko ci àdduna mu daal di wàcc ci antenne yi ñu toog seen kër di ko seetaan ci waxtaanu ko ci yor yor koor ma fekk ko ci ki nga xam ne mooy laxluux laxluux wax naa leen ko duma leen ko présenté waat di koo xam ne ma nga bàyyeekoo ci dëkk bu ñu naan Émirats Arabes Unis mu nekkoon sama promotionnaire de classe koo xam ne ñoo bokkoon ca jaar jaar mu daal di ñëw Sénégal pour indi témoignage ci li nga xam ne daar naa koog moom. jaar-jaaru Abu bilaal nag dafa am tey lu ko waral ñuy remercier bu baax sponsor yi nga xam ne ñoom ñoo goog émission bi ba jàppale ñu meew bi nga xam ne macha allah macha allah bi nga xam ne mooy laxdaa nga xam ne da nga koy dajji sotti ndox mu seey léegi nga naan ko mu mel ne meew nag bu ko ci ween macha allah macha fromage bi nga xam ne mooy la vache qui rit waaye koo xam ne da ngay wax muy ree bu ànd ak loo xam ne boo ko lekkee ree kon reetaan ak ree ñoo mun a ànd la euh, fromage euh, vache qui macha allah macha allah kon ba tey ñu ngi ci mbiru nag ndax nag mooy indi meew te mooy indi fromage. fromage bi nag bokk na ci nag yi nga xam ne dañ leen saytu xool seen wérgu yaram xool fromage ba lan lay def ci doomu aadama rawatina ci xale mag ku ko lekk sa wérgu yaram say yax day gën a nu gottiku macha allah macha allah macha allah su ko defee dolli ma baa ngi nii ba tey ci nag la ndax meew ma ngay juge ca nag tan nag bi boo ko ratee di nagu senegal diggante Daara Jolof barke ji ak lum pulpal fala ñii nga xam ne waa dolli ma dem xool éleveurs yi ne la ñun duñu uti meew bitim réew meewu nag nagu Sénégal nañuy ratt daal di koy wayal mu nekk soow ñu dem diggante fi nga xam ne mooy ndol-ndol ak Kaolack Saalum ak Kaffrine xam ne bu dee cere lak dugub ñoo ko dàq ñu daan leen woo jël leen ne leen kaa leen moo ñu leen ñu cere ñu boole soowu Sénégal mu nekk caakiri. macha allah <laughs> dool li ma bii nag ñoom dañoo civilisé ndax bii bu la neexee matt daa dee nàmp bii bu la neexee daa dee daal di jël kuddu yëngal sipp daa dee teen macha bii nag mooy tax télévision boo dem ñu lay seetaan ndax bu fekkee ne da nekk Arab Uni war a nga nekk Qatar war a nga nekk Gambie war a Mali war a beneen dëkk te satellite bi di xaw a indi affaire u calak-calak bii ngay jël nag am sa décodeur soo ko amee macha allah dootoo sax macha allah moom moo baax nag incha allah rabi ñoom nag dañu nekk ñoo xam ne daal euh, décodeur bi daal euh, wax dëgg yàlla boo ko amee ak clé bi TFM foo ko munti am ci àdduna bi boo doon dem ba kulu koro ginnaaw Inde dëkk bu naan naan Karabada boo fa demoon sax di nga fa am TFM. macha allah macha allah wax yéen nag seen kanam gi yëpp ngi ci àdduna ba ma nga ca Japon ma nga ca Chine nga ca lépp ndax lii nga xam ne ñi ko am di ko jënd ñoo koy mën a xam ndax ñoo koy fekke macha allah macha koor ca kaw. koor ca suuf. koor. ci waxtaanu koor. ci wet bi. wa ziimaanu. wa zaamaanu. wa zaamaanu. wa zaamaanu. wa ziimu zaama. wa ziimu kon mbokk yi mu ñu tàmbali waxtaan bi nga xam ne mooy waxtaanu koor ci yor-yoru koor ki nga xam ne mooy laxluux mën na maa seede ba ma nekkee ca jàngum xam-xam ba ne naa leen bi ma duggee ca dëkk bi nga xam ne moo nekk ca Afghanistan ci diggante Kurdas ak Palestine dëkk bu ñu naan Bardahala. foofu boo fay dugg da ngay am li nga xam ne dañ naan éthique ak déontologie maanaam nga jàng journalisme pour mën a xam li nga xam ne moom mooy mémorisation des données et de la mémoire mystique li nga xam ne moom mooy yàlla suñu borom dañu ko dénk pour nit ki buy wax mën a xam ca fa muy jaar ci xel bu neex. macha allah macha allah macha allah macha allah. Hmm. وذلك الأولى ترك لأن كنا جعتنا نفعل عن university ولا. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. والخنا أبو بلال. antum la arifu abibilal nanu nazabulna illal madrasatu tu Pakistan ah, kebiran madrasatu kula wakti abibilal bil fasil iza taati muallim dafay wax sama jaar-jaar ci arab li muy wax nii ci arab la koy wax dafay wax fi ma jaar ak dëkk yi ma jaar ba toj ko waaye nag na ngeen ko bàyyi xel moom nag xam nga dafa nekk koo xam ne islam ku mag la ku xam diine waaye làmmiñ bi dama koy jëw ndax déggul olof déggul olof de waaye boo ko dul freiné dana wax ba wax loo xam ne gilaawaali la جارك الزلاح ترك الابو بلال وركنا انا وزنا على على ابو بلال جعله على ازاق الكلام على ابو بلال هنا ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه جيد جيد ايوه ايوه walakinna abi bilal hmm. nanu nazabuna ila ila l islamique hmm. walakinna madinatun arabia hmm. nazab la pakistan abu bilal takrahuna bil kabira madrasatu walakinna walakinna hunalika abu bilal takallam lugatu arabia jaid kalamtu lugatu arabia lugatu fransia jaid lugatu inglisia jaid nazab la ila yemen ila yemen palestine ila kazalik kazalik palestine abu bilal iza samtala palestine takallam lugatu arabia هذا هو أفريقيا لماذا تغلب اللغة العربية أفريقيا الناس تعطوا هنا وتغلب اللغة اللغة su ko defee maa ngi fàttaliku bi ma ñëwee ci dëkk bi daa dee xuus ta sante xale bu jigéen bu ñu naan Aïcha Lula Aïcha Lula Aïcha Lula moom a jàpp daal damay yóbbu ci papam bu ñu naan alxatami ndekete alxatami mu ngi sant Lula boobu am na ci dëkk ba ñoo xam ne dañu taxawoon ne kenn du fi jàng xam-xam ndax buur ba nekkoon ci dëkk ba bokkuloon nag diine ak ki nga xam ne mooy alxatami doomu buur ba ñu tuddee koon kabal kabal kabal kabal karbala kabal karbala moo nekkoon prince bi dëkk ba nag ay Aysa Lula moo nekkoon xale bu ndaw boo xam ne mu ngi am fukki at ak juróom boo ko gisee ma njool ca kaw bu la soree day njool ca kaw buy ñëw day gàtt su ko neexee day ñuul su ko neexee day xees yaram ba ca boppam day nuroog suufu géej boo xoolee kanam ga ca boppam bët yi dafa teppeeku mel na tàndarma boo xar ci digg bi gémmin nga daa day yaatu ba ñu weex tàll mel na meew boo xoolee bakkan ba mel na comput picc boo xoolee leex yow dafa guuxu wàcc waaye boo gisee taar ba taan ba bu ñaq bi génn mu mel ne parfum lavanda yi siit ci loxo ba ay sa luulaa nekk jigéen joo xam ne dafa dal ànd ak dal xam diine macha allah ay suduulaa bi mu demee ba xam ne papam nee na ma yow mii da nga jóge Afrique. wa zakala Afrique la Aïcha Loula tarika lana zuna ala faqad Aïcha Loula. aywa aywa walakinna asha ashaula hmm. jaydi bintun minna kulla aw bintun. naala sa. walakinna albanatun jaydi ashaula. naala. ashaula afrikiya nas la alfu ashaula abi bilad alfu ashaula. macha allah macha allah. wallaahi billaahi wala kal kari kal tari kal su la mu ngi nettali loo xam ne ñëwagul buñ la joxee rédaction na la quand tu vas au marché racontez-nous ce qui se passe au marché boo demee marché wax ñu lan nga dund ci yoonu marché bi da ngay wax ba ngay dem marché la nga fa dund ba ba ngay egg waaye moom dafa commencé ci conclusion bëgg a dem munu nekk da ngay wax fi nga xam ne fa laa duggee waaye boo waxee dama ma jugee marché te demagoo boo nettalee ñëw bi te waxoo dem bi du am moo tax ma koy dóor dégg nga wajaka la laal traki la ala si moo tax ma wax leen bi ma duggee ca dëkk ba am na ku nekk ci ligne bi téléphone yi ibbi ko ay ca am na ku nekk ci ligne bi bu fekkee ne am na ku nekk ci ligne bi tonto mag jàpp na alo daafoay koo kan la waaw ngi sant yàlla yaa ngi ci jàmm nga lay déglu yaa ngi en direct ci Télé Futurs Médias yaa ngi kuul. nga ne lan. ba xam yaa ngi kuul. man du ma sa morom bay kuul ak teg yow. man oustaz la waaw waaw waaw waaw mais ñi ngi ñi ngi ñi lu baax ni ngay def li ngay def. walaay walaay. waaw parce que lu rafet la. Mm-hmm. waaw yaay ngi yaa ngi jàngal lu bëri ñun xale yi ñun jeunes yi. Mm-hmm, mm-hmm. waaw waaye yoo da nekk ci Facebook bi oustaz. waaw soo gisee ma nekk ci Facebook bi. parce que ay xarala la yoo xam ne ñoo xew ci àdduna mun te ñàkk parce que am ay taalibe yu nekk ba Afghanistan yu nekk ba Kurdistan yu nekk ba Barbara il faut ngay connecté ñoom mais du affaire u tax ma dugg ci Facebook waaw dëgg la oustaz moo daan nga tey parce que yaa ngi ci Facebook bi di jàngal nit ñi lu baax hmm, alhamdulilah waaw waaw ñu hmm, hmm, waaye démb ci guddi dafa am da nga nekkoon ci Facebook bi di wax ak kenn waaw démb ci guddi maa ngi doon waxtaan ak samay taalibe yu yaatu ci àdduna bi waaw lan la woon am na ci kenn ku tudd Mina. ku tudd. waaw Mina Mina waaw. ah waaw soxna Mina ñu ngi doon waxtaan démb lu sori sax lu sori. Hmm. waaw. mais yow gis nga oustaz. waaw. yow oustaz doo oustaz dara. nga ni. yow doo dara. nga ni. li wax yëpp hmm, du woon benn Mina li nga doon wax yëpp gis naa ko yow nga nekk fii di lem lemal naan SMS dañ ko war a bàyyi ah lu nekk nga wax ko ndekete yow yow yaa ngi tëj Facebook. oustaz bàyyi ngay def waaye yow doo benn exemple yow oustaz caay caay nga. sëb haram haram haram haram haram haram haram haram haram haram haram yow de yàlla tëkku na la génnal ma ko ci ligne bi ñii dafay am mooy njabootu batar batar ak batar buut ak bar buut yal na yàlla musal ci njabootu batar batar bar buut ak bar buut ndax batar batar ak barbuut ak barbuut ak barbuut ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo bañoon ay Aysa Lula sey ak man ndax ay Aysa Lula benn doom la bu góor bu jigéen papam mooy borom xam-xam di alxatami te alxatami dafa wax lu leer na sama doom ji duma ko may ko amul xam-xam doomu buur bi nag bokkul ak Aysa Lula diine ñoom lu ñu gëm mooy jël ay xërëm jël ay xeer di ko jaamu di ci sotti ay soow ak ay deret di jël nit ci boppam di ko lekk dëkk boobu. macha allah safurla haram haram haram haram yéen a may dégg waaye man si sama jàmbarte buur ba daa day joxe ordre ne dama bëgg gan bi nga xam ne moo ñëw ci dëkk bi te dégg naa tànkam yëpp mu ko teg ci ay Lula te ay Lula princesse la ndax sama doom bi nga xam ne mooy prince moo ko war a takk te bu ko takkee diine bi nga xam ne moom mooy diine bi nga xam ne ñun bokk ñoog ñoom seen doole dana jeex ndax ku jàpp doom daa koy indi ci diina bi nga xam ne mooy kéefër dootul defati loo xam ne mbiru jullit la ca laa taxaw nag ànd ak sama xarit bi وزلك الأجل لا نتلبتر بترنا لا لا جرس أدزها ونحن رئيس كذلك بال بال بهذه المدينة لا يحب أبو أبو بلال ولكن الشهولة جل بناتنا شهولة ولكن الشهولة ولا يحب الإسلام الشهولة شالا شالا شالا su ko defee bu fekkee ne am na ku ne ci ligne bi war a ci jotaay bi am na ñu bëgg laaj ndax conférence bi dañ koy yaatal bu fekkee ne am na ku bëgg laaj wàccal ñu dem ba ci ci ligne bi ayca ñëwal ñëwal. salaamaaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp tey di rafetlu sa toogaay fii ak ñun tey nga mhm. ñëw teew ci suñu conférence bi. Mhm. waa ba tey damay ñëwaat rek ustaas. Mhm. Euh, man daal dafa am euh, ay fans club ustaas Abou Bilal. فانس كلب astafurlah haram haram haram daayira daayira daayira dañ laa bëgg rek sopp la benn daayira la daal noonu laa ko mën a waxee léegi dañu am ndog buñ doon def comme ñu ma waxee comme que damaa ay ci michu yi rek man damay defar yu baax ñu jënd juróomi xar jox ma ko hmm. oustaz ma marina oh, xar bi xotti ko na ma ko daan defee rek hmm. bë diw bi fépp hmm. dugal ko ci fuur bi ba nga xam damaa ay ci michu damay jël bëtu xar marina ko mu mel ni nen da ngay jël bëtu xar. mariner ko mu mel ni nen nit yi dañ koy lekk sa yaakaar nen la. bëtu xar ci boppam ngay mariner ba mu nekk nen. waaw waaw boo koy lekk danga koy jaawaleeg nen ndax saf ak sama soble ba rek na ma ko mariner defar ko ba mu sas wante daal cata ci dugg oustaz. lu ci duggee lu ci cat ah ñoom dañoo lekk ne dafa saf xorom oustaz. te pourtant man defar naa ko comme ni ma ko doon defaree te boo ko mosee di nga xam ne saful xoram. jot ñoo lekk wala jotuñoo lekk. lekkuñu fi mu ne nii dañ maa mere. ana xar ya. ma nga fa. noo ko mariné. dama ko mariner rek dagg sama soble. Mhm. def ci sama bouillon nu ma la ko waxee woon rek. Mhm. def sama kaani laaj pooba. de de ko nank nankal de nank nankal li moo tax mu saf xorom de ko nank nankal nga ne. waaw dama dagg sama soble. Mhm. mariner ko. def si sama bouillon. def si sama kaani. moutarde. ak laaj def si lépp lu si war a dem. amoon na ketchup. noo ketchup bi da koy teg à part ak mayonnaise bi. loolu après la siy dem boo defaree marinade salade bi ak yooyu. ma defar ko ba mu saf rek ba mu mi tarkaal la. ba mu neex wante lekk yu nànk ko nànkal ko nànkal ko bu ko barti barti xanaa boo ko defee noonu day mel ni suppu da bëgg ma ñëwaat ci marina bi ñëwal ci marina bi oustaz chaque jour nga laaj marina bi li muy ñëw bari na da ngay defar sa soble mhm. ma def sama moutarde mhm. sama kaani mhm. sama bouillon laaj poobar ba mu saf sàpp defar ko ba mu neex rek. Uh-huh. xar bi moom dama koy diw sama beurre ruqrukaani xar fépp kor korlet yu baax ca dañ ko def ndax poqataanu xar dafa xóot. lépp laa def. Uh-huh. def ci ba mu baax ak jinjeer sànd ci lépp. jinjeer waaw ak xorom poole. <laughs> ak laurier. ba mu defar ko ba mu neex wante lekkuñu ko nag. lu tax cat de moo ci dugg nee nañ dafa saf xorom te billaahi oustaz loolu bu ma la ko tegaloon di nga xam ne saful xorom oustaz. da nga koy mayonnaise xorom mayonnaise boo koy wàcce. Mhm. da nga koy këccëb ba mu saf mhm. da nga koy mayonnaise ba mu saf waaw ndax mayonnaise bu fekk see xorom mhm. xorom ba ca boppam day wàññeeku dose ba yàlla boo ko këccëb nag boo ko jaxasee dafay changer couleur ndax noir rouge blanc rouge day doon soo ko jaxasee noonu paccal ci tuuti limam raay ko ci digg bi jël poqotaanu xar bi roof nga ko ba ci biir ndax bu dee ci dëkku arab la dañuy jël li nga xam ne mooy pooj bi daal ciy diw lem def ci mburu lakk ko dëpparti ko def ci mayonnaise ak këccëb eggalil ma xool def si mayonnaise ak ketchup marinetti ko ba mu saf rek oustaz mais oustaz yow mën nga togg de tarkaal la tarkaal la ci ginnaaw ci ginnaaw toogal ci ginnaaw ayca aram aram aram ayca ci ginnaaw ci ginnaaw ci kay toog ci kanam yow ayca ormalu oustaz rek daa day génn ayca waxtaanu koor ca kaw waxtaanu koor ci suuf ci yoonu alaaji abou bilal ci jaar jaaru alxatami ba nga xamee ne nag ñëw nañu moom ci boppam wari na ndax nit ki ci boppam doo wax ne oustaz mën nga togg dama koy wax jaar-jaar yi nga xam ne am nañu batar batar daa dee taxaw ak bar buut ne ñoom du ñu nangu benn yoon alxata mi dafa indi gan ci dëkk bi muy say ak koo xam ne ci dëkk bi la dëkk ñu daal may jàpp xaaju guddi am na ku ne ci ligne bi allo allo war a ñëwagul yéen may dégg xale yi jigéen ñi ñu daal may jël si ci guddi takk samay loxo daa di may jël li nga xam ne mooy ay xottu biteel toj ko jël ay pont teg ko di ma ci diri xotti biteel yi di xotti sama yaram dara gi di say ci kaw am na ku nekk ci liñ bi am na ku nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Fapal Fouta. nga ne. wala nag Fapal Fouta. man du ma sa ba nga naan ma kuut man oustaz la Abu Bilal gis nga ko nii ñu bind ko ca kaw. non dama lay wax ne du ma sa ba nga naan ma kuut ak koo koy ak ku koy kuut. d'accord waaw waaw waaw soo ma yónni na jot na ci frigo bi jërëjëf. nga ne. nee na nga lebal sa labat labat a sooli ne ay après koor bi soo ko ci ligne bi génn ko ci ligne bi génn ko ci ligne bi génn ko ci ligne bi génn ci ligne bi génn ko ci yaa seytaane dafay am dafa am ñoo xam ne buñ la gisee ci télé ngay wax ñëpp d'accord seen xoli sedd ñoom dañuy bëgg a yàq waaye ki dugg léegi xam na ne man du ma labat ndax man labat taxumaa jóg ku jàkkaarloog Aïcha Lula muñ ay Aïcha Lula dara du la jaaxal yéen a may dégg bañ ma diree nag daa jël ay pont di ko daaj sama ndodd li ñu daa dee jël li nga xam ne mooy barigo ko xal am na ku ne ci ligne bi yéen a ngi may dégg ñu daa dee jël bari ko togg ko ba mu fees dell ak xal jël sama tànk dugal ko ci bari bi ak والزمركل والزمركل teel alkal tarikal wa jamal say li mu def nii jëf ju rafet la parce que dafa am lu mu yëg moo tax mu yëkkati alalam jox ko loolu dafa baax nit ki bu lay expliquer jaar-jaaram bu fekkee na sa yaram dafa daw yëkkatil sa alal jox ko pour defal ko keroog sama tànk ndeyjoor nañu jël daal di koy dugal ci safara si boo gisee sama baaram bu ndaw bi ma ngay kabbar naan abu bilal jàppal na xal bi takk jàppal na xal bi lay lakk lakku mbégte la boobu maa ngi yëg bànneex mu ne mel na ñu ngi may yërëmtal buur bu soxor baa ngay xaqataay naan fa saxal lan lan la waxoon keroog fa saxalakal buur bi lan la waxoon malakal tarakal lan la ma tëkk woon waatat xalam abu bilal laa tadukul huna abu bilal la taklu huna mooy abu bilal dina dee tey la tatukul dina dee tey dina dee tey ñu ngi koy sarxolle dina dee tey di ma sarxolle ba bañ ko defee. macha allah macha allah macha allah. ci yërmande yàlla ma daa dee fëgg sama dënn ne man Abu Bilal sama turandoo bi nga xam ne moo njëkk nodd ca Kaaba ga maa ngi lay ñaan ci sa leer ak sa xaritoo bi nga xam ne xaritoo nga suñu borom nga fekk si ma ci coono yi nga xam ne moom laa nekk ndekete sama tànk bi ma tegoon ca xal ya dafa ëlbatu ku nekk ay yërëm tal maanaam mu mel ne lu may dóor <laughs> nga xam ne yàlla bu la soxee solee yónnee la mission dara ko mën a téye. buur bi daa dee jaaxle na waa lii kii lu tax jooyul ak ni ñu ko jëlee dugal ko ci safara bi ñu ne déedéet doyul ñu jël goudron am na ku nekk ci ligne bi goudron am na ku nekk ci ligne bi allo. allo. waaw. waaw Oustaz Abou Bilal. waaw kooku kan la. man la Aïda Niang. Aïda foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee jàmm gën Tali Kër Chérif. jàmm gën ci ban dëkk. Tali Kër Chérif Thiès. Thiès nga dëkk région de Thiès ngay te yow Aïda Niang. waa waaw yow Aida Niang lan nga bëgg laaj man daal oustaz dama am lu ma jaaxal lu la jaaxal waaw ndax damaa bëggoon a laajte ni courant bi fan yi mhm. mhm. courant bi dafay coupé rek mhm. su ñu xëyee bu ñu xëddee. Mhm. bu ñu dee xëdd courant bi day coupé du ñu xam ban heure jot. Mhm. jàkka ji du ñu dégg li muy nodd. Mhm. su heure ndogu jotee courant bi tamit dafay coupé waat. du ñu xam téléphone yëpp vide du ñu xam ban heure jot jàkka ji tamit bu dee nodd duñ ko dégg. frigo yi amul ndox dara amu fi daal Thiès mi ngi nii courant yi coupé daal la ñu sololoon. mu bëggoon laa laaj ndax ñun ñun ñoo amul koor wala waa Sénégal ñoom ñoo amul koor. bu fekkee ne wax dëgg yàlla heure bu ngeen di xëdd nag. courant bi di dem boo leen bi dem foofu ca jàmm gën ca quartier boobu nga ne nu mu tudd jàmm gën quartier bi nu mu tudd jàmm gën la tudd ah, damay jàpp ne chef d'agence bi nekk foofu ca Senelec wari na waaw ak képp koo xam ne da ngay liggéey Senelec ca Thiès wari nga waaye képp koo xam ne am nga jëkkër muy liggéey Senelec bu Sénégal wari nga ndax weeru koor nit a cee nekk dog jot ndax ma ak mbóot dañoo xaw a nuroo waaw bu baax li ma leen di wax tàndarma ak mbóot dañu xaw a nuroo. macha allah te bu courant coupé la ñuy jaxase. kaani la ñuy jaawaleeg tàndarma di ko lekk. loolu loo leen di dogee kaani. kaani da la ñuy jaawaleeg tàndarma ndax ñàkk gis rek. fu ñuy dogoo barki démb kon xam nga ne waa Thiès dañuy jaawale tàndarma ak mbóot. kon directeur Sénélec wari nga. chef d'agence bu Sénélec Thiès wari nga. ndax kuy jaawale tàndarma ak mbóot wax na dëgg ndax tàndarma couleur ba ca boppam ak mbóot benn la waaye dog jot nga war a lekk tàngar mu saf suukar nga ne te mun a pàcc xaraam xaraam tuflil leen ko tuflil leen ko tuflil leen ko tuflil leen ko wa zalaka almushwaar allati zalaka alaka altarik alaka almushwaar alkalb macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah su ko defee ñu daa dee wax na région de Thiès ña dëkk foofu ca quartier Diamaguène chef d'agence Senelec wari na ndax weeru koor kenn du coupé nit ñi bu fekkee ne imam bii ñoddu ci réveillam la yaakaar courant coupé du mën a chargé du mën a xam ndax waxtu julli jot na am déet am déet ko defee ma eggale li nga xam ne mooy waxtaanu koor ci kaw ci yor yooru koor waxtaanu koor ci allah macha allah bi nga xamee ne loolu am na ñu daal di jël goudron xam ngeen goudron daal di koy togg togg ko togg ko togg ko mel na kuy defar tali mel na kuy defar autoroute à ba muy bax ba mu ñor buur bi daa dee taxaw ne e batar batar wax ko ci arab am na lu mu ko wax ne ko jëlal abu bilal dugal ko ci goudron bi wasakala abu bilal kilal goudron fatalasa lan la ko waxoon walakin araysu huna zalika taxawala ne wulakan wax abu bilal shabana sala lan la ko waxoon na nazilat walakin ana taxallama yowma alamu yowm yowmin ahad min kulli yowmin anakal anakal walakin abu bilal waza iza zitu la palestinia anakal هن المدينة ما شاء الله ولكن حيث كنت إذا يريد أبو بلال تكفى إذهب إلى البيت ما شاء الله ولكن أبو بلال تكلم رئيس أنا تكلم أنا لا لا أتركه بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله doy na su ko defee boo ko bàyyi day yokk ci loo xam ne bokk ci wala kaala kaala man sa leen macha allah macha allah doy na waxtaanu koor ak fromage la vache qui rit waxtaanu koor ak dollima waxtaanu koor ak laxda waxtaanu koor ak startrak waxtaanu koor ak jeeg bu jar waxtaanu koor ak wari waxtaanu koor ak purée de maman kon dañuy waxtaan ci lépp loo xam ne dafay neexal koor biñ ma jëlee ba teg ma ci goudron bi foo toll dégg nit ñi di yuuxu di jooy naan Abu Bilal ñu ngi koy baxal nga dégg sama dënd bi naan bëf bëf sama nopp yi naan tër tër sama karam gi naan jër jër mu daw yaram lu daw yaram sama loxo yi di génna deret sama nopp yi di génn deret sama bët yi di lox sama yaram bi di daanu sama xol bi di bëtt sama nopp yi di génn fu nekk di génn deret bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi wasakal jooy yi bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi halakal tarikal bàyyi leen jooyi bàyyi leen jooyi walaka bàyyi leen jooyi assalam assalam assalam bàyyi leen jooyi macha allah bàyyi leen jooyi macha allah macha allah bàyyi leen jooyi bàyyi leen jooyi macha allah haram haram macha allah macha allah bàyyi leen jooyi macha allah bàyyi leen jooyi. walakinna hazal matal. hey hey. salakal haram haram bàyyi leen jooyi waxuguma dara waxuguma dara bàyyi leen jooyi damay soog a door am na ku ne ci ligne bi bàyyi leen jooyi am na ku nekk ci ligne bi allo. allo. waaw kooku kan la. salaamaaleykum Oustaz Abou Bilal. salaam. ça va na def. ñu ngi sant yàlla bu wér. nga baal ñu nag dañu ñu fekk ñuy mm. jooy. dañu ñu fekk ñuy jooy man la Mimi. waaw waaw. Mimi sa xarit. waaw na nga def Mimi. ah mi Mimi ban Mimi Touré. waaw ancien premier ministre du gouvernement Sénégal. Mimi Touré ancien premier ministre bu gouvernement Sénégal moo dugg ci waxtaanu ko waaw man maa duggoon ci waxtaan bi bëggoon la poser benn question. waaw Mimi Touré ñu ngi lay déglu. waaw parce que man euh, dama nekk ci gouvernement Sénégal nekk ci premier ministre. Mhm. léegi ci biir mois de Ramadan bi. waaw mooy barki Demba. Euh, cinquième jour bi. waaw. ma invité samay euh, chef de cabinet. Ah, maanaam sa personnel. samay chef personnel. Ah, waaw waaw. léegi ba ma leen invité pour ñu ñëw ndogoo sama kër. ndeysaan ndeysaan Mimi Touré. ay vers six heures sept yooyu rek. waa président de la république woo ma benn appel. waaw wala ndeysaan ndeysaan. waa après ba mu ma woowee nag may waxtaan ak moom. Mhm. mu mu dagg waxtaan bi. Mhm. ni ma dàq naa la wàcce naa la. Oh, ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ci koor gi léegi nag ba ma ma billaay ci koor gi. ndeysaan ci koor gi Touré. ba mu ma ko waxee noonu. waaw tamit man ko ah comme noonu nga ko gisee. waaw baax na. Hmm? léegi li ma ci xaw a jaaxal lenn la. waaw lu la jaaxal Touré. waaw parce que man samay euh, personnel yi yu ma ñëwoon ndogu si. waaw cabinet bi. ba ma leen euh, annoncé loolu. Hmm? ñoom ñëpp dañu tiit ba ñoom ñëpp dañu naan ndox. astafurla astafurla astafurla ban heure la ban na la la président euh, wàcce. gis nga de. ban heure la la wàcce. ay vers six heures sept heures et heure ndogu yooyu. allahu akbar léegi da nga lan léegi lan nga bëggoon laaj yow Mimi Touré loo bëggoon xam. léegi dama bëggoon laaj nag ba xam ñoom seen koor googu ci man lay tegu wala ci président de la république bi ci lay tegu. dama la bëgg a jàppal ne yow Mimi Touré yow mi nga xam ne wax bi dafa leer nee na bi mu invité ay cabinet personnel am pour ñu daadee waxtaan def benn ndogu. 6 heures la ko président woo na ko wàcc naa la ñoo ñu daadee yëg information bi tiit naan ndox. muy laaj ndax am na moom mooy gàddu responsabilité war a président ma daal di ko ciy leeral kon nañu jàpp ne président bi wari na moog soxnaam wari nañu ak gouvernement am wari nañu ak ay conseil am wari nañu ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey gouvernement Sénégal muy bennoo siggil Sénégal ak benno bokk yaakaar ak koo xam ne ministre conseil nga wara ngay liggéey moom ci gouvernement boobu nañu jàpp na ñoom ñëpp wari nañu kon Mimi Touré yaa am koor ñoom ñoo wari d'accord macha allah da ngeen di bàyyi jooy yi parce que jooy yi ngeen di jooy dafay daw sama yaram bi nga xamee ne ñu ngi koy remercier moom premier euh, ministre bi nga xamee ne ndeysaan jàpp nañ ma ba baxal ma xam nga lu ñu def génne ma ci goudron dugal ma ci diwlin génne ma ci goudron dugal ma ci diwlin wa jabala kal wula kal tarik xaana kal wula al tarik wa zamana kal wula al tarik macha allah macha allah bàyyi leen jooy wa zamana këlbu laa altari ñu daal may jàpp dugal ma ci nga xam ne moom mooy diwlin bi tàngal diwlin gi ba mu sens baxal diwlin gi ba mu sens daal may soor ci gi daal may baxal